baax di amaat mbégte ak contentement bu mag mbokk yi ñu ngi jëm ci bis bu mag bis boo xamante ni Ibla production moom moo ci woo le 25 décembre diggante Zarko ak Diène Kaïré mbokk yi tey Diène rek gis ngeen façon bi mu ñëwee ci biir Soumbédioune mais Diène balaa ñu ñëw ci loolu ma bàyyi la nga ñëw nga nuyu ak sénégalais yi ñuy seetaan ak internet ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. waaw ñu ngi lay fay bàyyi baala la di la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 kon aw ma fayam waaw du nuyu sunu père yi comprendre nga dirigeant yi képp kuy dirigeant nekk ci équipe bi di si jàpp ñu ngi lay sant di la gërëm di nuyu mbër yi sama mbokk mbëri yi tey ñoom ñëpp a bàyyi li def ñëw jàpp si di ñaan ñi ci am combat ñëpp yàlla may leen ndam mbëru Medina yëpp yëpp yëpp waaw ñoom bébé jéen bañik xam nga ñoom ñoxo rek boo yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak boo yi xam nga booy yi ñëw ay Ibou Afia caatu Medina waaw Coriace ñoom ñëpp daal ñu ngi bëggee ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm nuyu ñëpp di bëggee di nuyu jaraaf tamit di nuyu paaw géej yeeg grand yeeg mareyeur yeeg ñëpp ak mool yi. ñu seetlu ni si dañ ko jël. moom xam na adversaire bi nga am. Mm-hmm. ndax Zarko ku ko xam. Mm-hmm. xam ne bu dee dooleem ngeen moom bu dee mën na ko bëri. ma jël sa coach mi na ma combat dama ko bare physiquement ci côté yëpp ci xeex bi ci bëri mm-hmm. est-ce que loolu tey mën nga ko dëggal ngay bëree adversaire bu toll bi Zarko est-ce que combat bi pare nga waaw li ñuy wax rek làmb mën naa ne combat ba mu ba mu taxawee ba léegi yàgg na ku parewul moom mën naa ne da ngaa yeb da say mbokk waaw muy tey combat bu gaaw pare nañ combat bu yéex pare nañ waaw buggee ñu ñëw salaamaaleykum daje bëri ko mu jeex su buggee ñu waaw bëre jëmale suba incha allah ñu ñaan yàlla nag may ñu ndam. Diène Kaïré ak yàgg naa bëri bis bu mag. Hmm. mais bis bi digganteem ak Zarko adversaire bi wuute nag adversaire parce que boo xoolee Zarko dañuy gis moom suuf Diène Kaïré hmm.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 lu mu mën lu mu mën di mën ci làmb loolu moom la man li ma ñor mooy li may indi dimanche incha allah te incha allah bu ma xam naa ne day dem palais bu soobee yàlla. mais mais hmm. waaw manœuvre hmm. hmm. sant làmb moom noonu la làmb tey mën na ñëw mu gaaw mën nga ñëw mu yéex waaw yàgg na bëri ay combat gaaw yàgg na bëri combat yu yéex man tam bëri naa fi combat gaaw bëri naa fi combat yu yéex waaw kon nag xam nga liggéey nañ daal li liggéey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 man dara xiiru mbër dérangé wu ma li ma dérangé mooy arbitre sifflé waaw ku mën sa morom duma waaw. waaw loolu dëgg moom boobu paa bi lay waxal paa bi. paa bi la wax quoi mu ne bu fekkee da nga jël Zarko te ñeme woo xam nga moom rek moom day neexal <laughs> Zarko bëriwul ak moom paa bi lay jéem a ruube.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 bu jëlsee bu xaaree bu xeexee bu bëree lu mu indi ma ak moom day meex man pare naa fépp. Ah, incha allah état bi tey état bi yëngal Zarko. Ah, ku dul góor buy tax ngem mën na laa yëngal. waaw non Zarko moom jàmm laa koy ñaanal. incha allah di ko ñaanal jàmm ba dimanche di profité di woote waale fair play waaw làmb xam nga soxlawuñu violence non non ñun ñëpp ñoo far waaw nañ dem dem si jàmm bëre si jàmm.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 amateurs yi dinañ kontaan incha allah. da nga bëri nag Youssou Ndour 2017. waaw bëre bu rëy ba. bëre bu rëy bëre. te am naa yaakaar ne moom dina ma delloo foofu. yéen yéen yoon sa ah, man lii mën naa ne yàgg na maa dal. mës ngaa bëri arène nationale. waaw waaw bëri naa maag moo maag moo daan da waaw ñaari yoon moo daan da koen yëpp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 waaw di ko sant di mel ni suñu père Max suñu père Ndiaye koy sant waaw directeur Youssou Mbargane ñu ngi koy sant ñu ngi woo monsieur le maire la Bamba Fall ñu ngi woo di woo Cheikh Ba waaw ak autorités yi fi nekk yëpp gisaguñ leen waaw ñëw leen ngeen jàpp da ngeen ci war a jàpp supporters yi seen cool yi am supporters yu jéene Arafa Cheikh que am na cool yi amoon seen biir loolu sax loolu mën naa ne du supporter parce que dañu romb quelque ñett xale la rek ñun Fass fa lañ bokk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 jàpp nañu baax Pape Jila Booji waaw Père Ndiaye tamit ñu ngi lay bëggee Alsane Ndaw ñu ngi koy baa bu baax suñu tons Papa Ndaw Batalaay ñu ngi sant ñëpp daal bu ñu limee dañuy juum yéen journalistes yi tam ñu ngi leen di sant bu baax baax ndax gis nañ coono yi déplacement yi xam nga waaw ñooy jégalu bu dul woon yéen ñun kenn ñu xam waaw Ablaye Badiane nag ñëpp siyaar nañ leen bëggee nañ leen xam nga waaw mooy loolu moom moom dafa am wax bu mu njëkk a wax dafa ne boor bi sifflé damay dal sa kaw ñu demaat ba ci biir mu ne ma yow yaa war a ñëw waaw léegi nag lenn moo am li mu wax na ko dëggal bu ko defee duñ fa yàgg eh, waaw man damay ñëw bu fekkee nanguwul ñëw nag na taxaw xaar ma ma ñëw jëli ko ñu dem suñu yoon yàlla na yàlla may gudd fan ba dimanche baax de man mbégte ak contentement bu mag mbokk ñu ngi jëm ci bis bu mag bis boo xamante ni Ibrahima production moom moo ci wala 25 décembre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 lu mu mën lu mu mun di mën ci làmb loolu moom la man li ma ñor mooy li may indi dimanche incha allah te incha allah bu ma xam naa ne day dem pale bu soobee yàlla. mais mais Zarko hmm. waaw manœuvre hmm. hmm. làmb moom noonu la làmb tey mën na ñëw mu gaaw mën nga ñëw mu yéex waaw yàgg na bëri ay combat gaaw yàgg na bëri combat yu yéex man tam bëri naa fi combat gaaw bëri naa fi combat yu yéex waaw kon nag xam nga liggéey nañ daal li ñu liggéey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 waaw waaw mën naa ne man du ma sax bàyyi xel yàlla xam na ko damay ñëw gars yi sax dañu ma naan semaine bi yokk nga bi wàññi nga ak yooyu man li ma war a def ci entraînement rek moom laay def ànd ak suñu coach ku ci mel ni paa bi sama papa maa nuyu baax a baax xam nga sonn si ñun ay ñoom maxu grand père xam nga dirigeant yi ñoom père abu ñëpp ay maawo vraiment xam nga ne si di jàpp man ñoom laay déglu coach Babacar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 man dara xiiru mbër dérangé wu ma li ma dérangé wu mooy arbitre sifflé waaw ku mën sa morom duma waaw. waaw loolu moom boobu paa bi lay waxal paa bi bi la wax quoi mu ne bu fekkee da nga jël Zarko te ñeme woo xam nga moom rek moom day neexal <laughs> Zarko bëriwul ak moom paa bi lay jéem a ruube.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 mu ñëw bëre ak mbay guy gi daan ko ak manière mm-hmm. ñu ne fa la ñuy yem mu jël ma Mandior teg ko ci mm-hmm. ñu ne fa la ñuy yem mu jël Ada Fass teg ko ci mm-hmm. est-ce que capacité bëre yooyu Zarko bëre ko ci làmb yooyu noonu jéen lan lay suur ci Zarko bis boobu waaw mën naa loolu lu yàlla dogal la xam nga tey lu yàlla dogal kenn mënu dara bëri na ak ñoom daan na leen ay champion lañ maa ngi leen nuyu baax baax a baax ñoom ñëpp waaw mais bu dimanche dina xam ne man du ma ñooñu ñooñ ñu man du question nag maa leen mën wala dara déedéet. mais fit am ak ñeme yow fit du ay xiiru. day xiiru loolu nga jàpp. day xiiru barigo bu fees du yëngu. waaw barigo vide mooy bëri biir rek ñoo di fit bëgg a wane ne non non. ñu ne ñu ne ay yàlla lañ kenn mënuñoo jaay fit ci àdduna. barki laa ilaaha ay góor yàlla dëgg dëgg lañ. dara feesul suñu bët lu dul yàlla. la jëli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 waaw mën nañ xaar jàppante bëre daw loolu mun nañ xaar ci waaw loolu loolu mun mën da ñàkk parce que moom bërekat la moom dafa bëgg xam nga ay action yaa ma gën a xam moo xam naa ne bu ñu bëree man ak moom amateurs yi dinañ kontaan incha allah. da nga bëri waaw bëree bu rëy ba. bëree bu rëy ba ci bëre. waaw te am naa yaakaar ne moom dina ma delloo foofu. yéen yéen hmm. yoon sa man lii mën naa ne yàgg na maa dal. mës ngaa bëri arène nationale. waaw waaw bëri naa maag moo daan dafa waaw ñaari yoon moo daan da koen si yëpp fa lañ bëre waaw ñun loolu dérangé wu ñun làmb dafa bëre dafa ne si ñun waaw bu ñu toogoon ay bëre wuñ tamit nii nii boo ñu yeewee waaw ñu bëre loolo sant yàlla bu baax waaw di sant supporters yi di sant président supporter bi ku ci mel ni Pa Omar gars yi ay Modou Mbaye xam nga Cheikh su ma limee daal damay juum xaaf gars yëpp képp koo xamante ne yaa ngi jàppale kii maa ngi lay bëggee waaw waa jàppal ma jàpp maa ngi leen di bëggee mooy mooy waa géej waaw di baax gis seen taxawaay waaw ñoom ñooñu ñooñu ñooy man maay ñoom man ak ñoom ñoo bokk benn objectif bu ñuy wër mooy dugal fii làmb incha allah waaw di ko sant di mel ni suñu père Max suñu père Ndiaye sant waaw directeur Youssou Mbargane ñu ngi koy sant ñu ngi woo monsieur le maire gisaguñ la Bamba Fall ñu ngi di woo Cheikh Ba waaw ak autorités yi fi nekk yëpp gisaguñ leen waaw ñëw leen ngeen jàpp si da ngeen si war a jàpp supporters yi cool yi am supporters yu jéene Arafa Cheikh yooyu lu déstabilisé parce que keroog am na cool yi amul seen biir non non loolu sax loolu mën naa ne du supporter parce que dañu romb quelque ñett xale la rek ñun Fass fa lañ bokk waaw Fass dañ fa am ay papa am fay mbokk am fay lépp te yooyu noonu ngay dégg ay nii nii mosoo si dégg jéen te duñ ci mës a mës a si yooyu ah. ñun ñoom ñoo far dërëm bi génnul gaal gi waaw seen du asamaan nag jarul buuxan bi ku ne ñi nga war a bëreel ngay bëreel ñi nga war a daan ngay daan daan yàllaa ko moom ñun tooguñu foofu waaw yàlla yàlla dimbali ñëpp suturaak yoon hmm. waaw hmm. Hmm.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 incha allah waaw xam nga ñu ngi koy bëggee waaw di woo 1000 pour cent bi yëpp waaw 1000 pour cent bi dinaa yëpp waaw cat ba cat gël tapé Fass Colobane gis nañ mobilisation bi daal Derklé xaar yàlla ci asek na grand grand Dakar asalem 1 ba 6 Kastoor ñëpp ñu ngi leen di woo Tamsir soxna ñu ngi lay woo waaw Thierno Mamadou Ba tam ñu ngi lay woo si billet yi ja ñun billet rek lañ soxla Gora Camara xam nga l' international tam jàpp nañ ci jàpp nañ baax ba bi jilaa boo ji waaw Père Ndiaye ñu ngi lay bëggee Alsaan Ndaw ñu ngi koy bëggee bu baax suñu tons Papa Ndaw Batalaay ñu ngi sant ñëpp daal bu ñu limee dañuy juum yéen journalistes yi tam ñu ngi leen di sant bu baax baax ndax gis nañ coono yi déplacement yi xam nga waaw ñooy jégalu bu dul woon yéen ñun kenn ñu xam waaw Ablaye Badiane nag ñëpp siyaar nañ leen bëggee nañ leen xam nga waaw mooy loolu non non moom moom dafa wax bu mu njëkk a wax dafa ne boor bi sifflé damay dal sa kaw ñu demaat ba ci biir mu ne ma yow yaa war a waaw léegi nag lenn moo am li mu wax na ko dëggal bu ko defee duñ fa yàgg. Eh, lu mu def daal. waaw man damay ñëw bu fekkee nanguwul ñëw nag na taxaw xaar ma ma ñëw jëli ko ñu dem suñu yoon yàlla na yàlla may gudd fan ba dimanche.